fàttaliku taxawaayu sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Falilu mi nga xamante ne tey taali bu ne taali bu benn bu nekk yëngërëg ab taxawaay bu am solo boo xam ne taxaw na ko ci yoonu murit ci yaatal wante woyof lool di yëkkati ay tànkam waxtu wu ci nekk di nemmiku njabootu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ alaaji baara mbàkke falilu ginnaaw bi mu wutoo sëriñ touba di xalifa sëriñ touba boole ko xalifa seex amadul faadil mbàkke jéegoom yi mu seq rëy lool yaatu lool daal root ci biir touba sëriñ alaaji baara mbàkke falilu doonoon kenn ku ñëpp yëkk ci woyofam ak yaatoom yan na yàlla doon leeram guddul fanu sëriñ Moustapha ak njabootam ba dañu yéene liggéey ñu yët liggéey ko yoonu seen maam ji sëriñ touba xaadimu rasul xamuñu nu xasaay bi toll gisaguñ lépp sax te ginnaaw daal su naam la bu njëkk boobu am na njariñ lool waa Daaru Salaam sant nañ leen ci muy sëriñ mag ak ndaw ñu dolli ci sëriñ Abu Baraka ñëw fa ci ngoon di jëm ñu sëriñ toogoon bi mu jógee ci géej gi liggéeyal borom ba dellu si Sénégal fa mu toogoon ni di ko berndeel ak fi sa sëriñ abu toogoon diggante bu gàtt la ay mètre loolu waa dara salaam ñu ngi sant nga jot la ko Cheikh Mouhamadou li nga xam ne moom lañ war a ko topp day gudd Cheikh Mouhamadul Maamu nekk fi di sëñ Fàllu ma xool sama càmmoñ alxaaji sëriñ Tànko nekk fi di sëriñ Fàllu ñoom ñëpp ñu tudd leen da njabootu maam Cheikh Anta loolu lu rëy rëy la man sama yoon ko fi faatal doon loolu moo ngi di lu réy réy réy te tàkk yooyu njabootu Cheikh Mahamadou Fall gépp ko am ñëw siyaare si Daaru Salaam ngir seen waajur bu baax ba nga xam ne kenn gisul am kemam laa mit la la woon fi l xalqi wal xuluq lefu xam-xamam kenn du ko jot lefu bàttinam kenn du ko jot but faju barata suñu borom may ko fan gudd ñu yàgg fi lool te wér yàgg jiite màggal gi ñu yàgg ko fekk yéen li ko dale ji Cheikh Mouhamadul Bachir yàgg Cheikh Abdou Fatah ba ci njabootu suñ fàllu gépp ba ci bokki buso mbuso bi yi di su di genn mbokk yi ak mboolem taalibe yi waa daayira bépp ak ku laal ci màggal gi ak ku ci def dara yal na suñu borom may defarug saayir ak defarug baatin rahmaan rahim alhamdulilah wahda wasalaatu wasalaam bu baax suñu kilifa custa vincular? njabootu Cheikh Mamadou Fadel yi nag dañoo wax ne amuñu seen pay mag ñi dañoo wax ne koo ne xawma du ma koy def nam la def ndax waaye yéen ñii de xamuñu lu ñu leen di def ndax ni ngeen di def te lii ñuy wax ci suñu xol lañ ko mag gone bu ne nag sañ naa ñaanal mag mu ko teral ñaanal donte suñu ñaan tuuti na lool ci yéen waaye lu mu tuuti tuuti dal ko ñàkk mu jariñ leen ñoo ngi leen di ñaanal bu baax cër bi leen yàlla jox yàlla ko suñu borom gën a kaweel saa bu ngeen xëyee saa bu ngeen yewoo yàlla na leen suñu borom yokk ba li ngeen am yéene liggéeyal ko sëriñ tubaa kenn ku nekk ci yéen man ko mot di góor di jigéen di mag ndaw suñu kilifa jox ñu ndigal ñu tudde bis bii man sa saxant sawar ci lool nag ndax na ma ko waxe woon ku jëf lu rëy ngir Sëriñ Tuubaa waaye daj lu ne it ngir Cheikh Mamadou Fall loolu ma wax tënk la boo xam te ni ku xam taarix da ci xam dara bari na loo xam te bii néexut a wax waaye lu rëy rëy la lu dox diggante maam Cheikh Anta ak Cheikh Mamadou Fall maa ngi ci fàttali tuuti rek bi fi bi mu fi jógee dem ne da koy seeti fee mu nekkoon ci man Cheikh Abdou Cheikh Abdou Fattah nee na bi mu wàccee saxaar gi ba dugg oto diggante Tamba jëmmali bi mu duggee ci oto bi yàlla dogal mu sës ci apprenti bi apprenti bi yor benn tànk boo xam ne bi li ñuy wax góomu rabaale ci wolof metti metti metti yàlla dogal mu sësu Cheikh Mamadou Fadal far mu far yërëm ko ne xam naa ne kii de nelaw sii mu am soxla woon na ko lool te gëj na ko am kon naa ko yërëm bañ koo yee te waxtu woo mu koy wax ndekete fi tànk bi toll mi ngi tolloog mbubum sëñ bi góom bi di xel li dëtt ci mbubum sëriñ bi mu gis ne mi ngi xel li dëtt ci mbubum sëriñ ci mbubam bi waaye yërëm gu mu ko yërëm te xam ne lii mu am ci nelaw gëj na koo am te soxla woon na ko yitte woon na ko gisatul mbubam ngir bëgg koo dimbali muñ ko ba bu ma eggee dañoo simbi doy waar gu mu doy waar ngir man nga ko defal mu man koo sol bi mu egsee ci maam Cheikh yàlla ñu ko yàlla fayal mu ne ko kii xanaa du Mouhamadou Fall mu ne ko ah kay mu ne ko looyu fii mu ne ko xanaa jël si mu ne ko fii sori na de mu ne ko waaye yaa ma tax a jóg nañ loo xam ne ñoom xam nañ donte ñun dañ cee xam waaye ñoom xam nañ lañu séq maam Cheikh Anta am na fu mu tolloon Cheikh Mamadou Fadil ba bu tedd ki radiyallahu anhu daf daan wax n Mouhamadou Fadil de seex ay waajur loolu am na ay bu ko waxtaan wi euh, laajoo bu ko bu fekkoon ne yaatu na dana am tuuti luñ ci tudd ba nga bañ mën a xam ne maam saxan dund na Cheikh Amadou waaye Cheikh maam Cheikh Amadou Fadal dafa dund maam saxan ci kanam sëñ ko ci gannaaw sëñ kanam sëñ bi la ko dund xalaaxa bu mu amal mujj mu naan Mouhamadou Fadil de seex ay baayam kon yéen na ngeen jàpp ne Mouhamadou Fadil nangu na ne seex ay baayam dund na ko waaye seex it nangu ne ne Mouhamadul Fadil yow doomam te dund na ko kon yàlla na leen yàlla fay ngeen ñi fay ñu dollee santaat bu baax it presse bi nga xam bi ñoo fi teew rajo télé ak luy jàllale internet ak lu mën a doon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm 살고 그 teraanga bu ñu la ko joxee moom doo ko mën a doo ko mën a bañ a waaye bu sëriñ waxee mel na ni sëriñ Sidi Muxtaar moo wax mel na ni sëriñ sëriñ Baara yi itam di ay doomam ñoo wax kàddu bi daanaka mënoon na ko yóbbu maam Cheikh Anta bi mu daaneelee boobu mi nga xam ne moo nekk ci boppu kër Sëriñ Fallu te doon nit koo xam ne bu set bëcc la doon nit koo xam ne ak taalibe rek la xam doon nit koo xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek la xam ndax wax naa daaw ne moom laa mos a gis ci kuñ jox ab liggéey ni la defal ma nangam nga ne lii ñu ma jox daa tuuti bu ko sëriñ liggéey loolu ci tawféex daf ko ne yokkal ma ndax li nga ma jox dafa tuuti dafa naa àndaay ci njaay mi kon ñu di la jottali nuyoo ak siyaar ak cant sëriñ Mamoune la jottali ñu boo sëriñ bi ci sëriñ Abou ñu xam leen buñ ci toolee nekk sëriñ Touba ba léegi tam lépp loo ko xam ne daf koo santaane kenn mënu ko ci kon bis bu mel nii su ko amee ay doomam di doomi sëriñ bi am initiative bu baax bu mel nii di préparer bis bu guddi gu tedd googu nga xam ne kenn ku nekk war naa xam ne sëriñ Fallou am na cër bu ko boo xam ne yàlla suñu borom ba mu ganee adduna rek ku koo xam ne ku am xam-xam nga rek war ngaa xam ne kii boroomu cër la ndax guddi googu noonu ku amul cër mu ne yàlla da la ko ci gën a kon sëriñ bi ñoo ngi ñëpp ñoo ngi siyaare ñëpp di sant itam euh, sëriñ yi nga xam ne bis bii tey ñoom ñoo ko taxawal jël ko ko maam Cheikh Atta ndax mag ñi li ñu doon dund fekkee ni seeni doom seeni sët dañoo ñëw fas yéene wéeru loolu ñu doon dund euh, di ko di ko di ko di ko di ko rafetal nañu ko doon defee loolu day na sëkk sant yàlla ndax kenn ku nekk xam na ne mag ñi li fi nekke woon bennoo lañ fi nekke woon àndandoo di jëfandoo di yëkkateendoo di tëralandoo di tuddante di seetante ba ba ba ba ba yeggale yëf yi fii mu yàgg kon seeni doom ak seeni sët buñ ñëwee tey aw ci tracé googu loolu euh, sant yàlla lay doon parce que ñoom ay référence lañu yoo xam ni ku référé wu ci ñoom doo juum te seen jotaay bii tey wane na ni référence yi nga xam ne mag ñi bàyyi woon nañu ko fi kat seen doom yi ak seen sët yi ñoom ñu ngi koy xajtu diggante Sëriñ Fallu ak maam Cheikh Anta umpul kenn man mi toog tey diggante Sëriñ Baara ak Sëriñ Fallu umpul kenn ñi ñi ñi takkee rajo di addis ci mbedd mi sax dañ ciy wax loo xam ne boo demee fa ñu bind itam fekk ko kon ñoo ngi sant sëti Sëriñ Fallu bu baax initiative bu bu bu rafet bi nga xam ne dañ ko ndax euh, adduna si dafa yegg fa nga xam ne ñëpp dañoo dañoo war a booloo nekk benn rawatina ñi nga xam ne ay jullit lañ waaye rawatina ñi nga xam ne ay taalibe Serigne Touba lañ waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy njabootu Serigne Touba dañoo war a booloo dañoo war a nekk benn dañoo war a wóolonte dañoo war a soppante foo xam ne nit dafa dafa teew këfa teewul nga teewal ko fa mu mel ni mu mel ni ma nga fa parce que Serigne Touba defar na lépp ba noppi dara desu ci lu dul rafetal ndax koo xam ni ba nga bala bala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu fii ci Daaru Kudus nga wax ko ni ñii nga àndal damaa bëgg bokk ci ñoom mu ne la boo bëggee bokk ci ñoom bañ waxee ca sart yi ba ba yonente bi d'accord ci mu bokk ca mu ne ko boo génnul fii kat doo ci mën a bokk ndax fii dañ la ko aaroo kon kooku su fekkoon ni njabootam rek wala jëmm boppam rek moo taxoon mu doon dem di liggéey liggéeyam kuréel bii kon du ko dem ndax yàlla aaral loolu na ko dëkk bi ba pare kon leneen li ci des nag mooy sax ci ndigal te bañ a te te bàyyi ak tere leneen li ci des itam mooy euh, ñi mel ni man ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci gëstu xam-xam ñu gën a góorgóorlu ci yar gone yi ndax toll nañ ci étape ko nga xam ne euh, média rek daanaka mooy mooy li tasaare ci adduna si lépp adduna si yëpp te tey ku bind ci yoon mu am ku jóge fee del tontu ci yoon mu te tegul ko ci régal yu leer tegul ko ci baas yu leer tontu la du am bii kon nag ñoo ngi maa ngi maa maa ngi dollee dénkaane ñu yar gone yi te jàngal leen ndax buñ da ngay wax ne wan ma sa xale réew ma wan la sa ëllëgu réew ndax yar ca base ba nga koy defee bari na catastrophe yoo xam ne ñu ngi koy gis di ko dégg di ci teg suñu bët ci ci ci dëkk bii ab ci feneen ak feneen te dara warul ko dudul yar bu manqué dara warul ko dudul ñàkk jàng dara warul ko dudul jaahiliya rek kon nag maa ngi dénkaane ñuy yar xale yi ñu jàngal leen ñu ñu ñu teg leen fi nga xam ne mag ñe foofu lañ tegoon seen tànk ndax Serigne Fallou bii de lu ne mënees na ko royee ci ñoom ndax jumaa ji toll nii nga tabax ko ba mu yegg wëlbatiku jiite ko ay at kenn ku nekk xam na ne wane nga ne mën ngaa tabax jumaa waaye itam mën nga koo jiite te am nga ko ñu ko mën a jiite tam te kenn ku nekk ci nun kenn ku nekk ci taalibe yi sax laay wax waxuma sax sëriñ même na ci taalibe yi kenn ku ne tracé boobu war ngaa jóg jaar te ñuy seeteente te ñu soppante te itam ñu wóoloonte te itam ñu bëggante ndax jamono ji boo koy xool tey ji soppante gi néew na néew na trop des na ko wax ci aw làmmiñ waaye dee su ko jëf bëggante gi des na ko wax ci aw làmmiñ waaye jëf gi dana néew ndax mag ñi lañ daan def mu di bëggante da nga daan jóg dem ci kër nit doo ko fa fekk mu mel ni tey jii fekk nga fi borom kër ndax féppam dajale la ko ubbi léppam dañu la ko def am na kër yoo xam tey boo ca yeggoon tey néeg borom kër ga boo bokkoon ak moom ndey ak baay wala nga bokk ak moom benn baay kenn lu ko ubbi dañuy seet kuñ la teg ndax dañ naan leen tuur ko saafara wala mu loolu nag mooy ñàkk sopponte mooy ñàkk a wóolonte mooy ñàkk a booloo nekk benn te loolu lépp dara warul ko lul tartari jamono ji te tartari jamono ji itam li ko war waral lépp itam du dara lu dul xoli nit ñàkk gi ñàkk ànd catastrophe yi ngay dégg nawet yu manque yeeg ngelaw yeeg affaire yi nga affaire catastrophe yi du dara lu xol ñàkk a booloo yi bu nit ñi jullit ñi booloo nekk seen bopp di jàppandoo di lépp ñu bëgg rek yàlla suñu borom fekk ñun ñooy soppeeku waaye moom du soppeeku mukk dina laa laa yu boo xoolee tey jii ci réewu yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp ñu fi gën a am doole yàlla suñu borom jox leen matière matière première nga xam ne mooy pétrole tey jii ñoom ñu yore ko di ci jëf di ci dox di ci wax tey ñépp a toog ci seen ko te dara warul ko dul ña toog ci seen kaw dañoo booloo nekk dan boo seetee tey Amérique juróom fukki réew la ñu booloo nekk dan ñoo fi man ku fi am lu fi waaye am ñu foog ko yóbbu tey boo xoolee Syrie jàmm nekk fa boo demee Irak jàmm nekk fa boo demee Égypte jàmm nekk fa boo demee Libye jàmm nekk fa boo demee euh, Liban jàmm nekk fa te ñoom ñooy réew yi nga xam ni bu dee wërsëg rek di matière première liy joxal jamono yàlla sunu borom jox te tey jii ba leen yàlla ne ngeen jullit jullitey mbokkam inamal moom noonu ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ñoom ñu weddi loolu ñoom yàlla wax leen ko ñoom ñu weddi loolu jëfewuñ ko ña nga xam ne dañ koo jëfe ñoom tey jii résultat bi gis nañ kon nag bind nañ ma ni ni ni waxtu wi gàtt na waaye boo gisee ma guddal koy itam du dara sama yéene la rek ndax jotaay bi mënoon naa sax bañ a jël parole ndax yéen ñii ñëpp ku fi jël parole rek sëñ bi së sëñ bi nga fi nga fi nga fi représenté kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ma buggoon wax nag romb na lii waaye ginnaaw ñi moom waxtu nee ñu waxtu wi gàtt na asalaamaaleykum

sama kër am na fa ko ba barax ngeen ko daal ma ci waxee jigéen lay doon bu ñëwee yow laa ko tuddee soxna soosu mi ngi dégg li may wax wala ak Um,